nañ ko bàyyi politiciens yi. mais ce qui ce qui vient de mais je pense que politiciens yi moom commencé nañ ko wax depuis démb. mais daal xam nga lan la ñu war a poser question. Mm-hmm. à partir du 2 avril président Macky Sall lu muy def. <laughs> absolument parce qu'il ne sera plus président de ce pays. Mm-hmm. parce que le conseil constitutionnel et la et notre constitution est très claire. on se souvient de 2016. Mm-hmm. bi mu bëggee naan day wàññi mandat lu ko conseil constitutionnel wax doo ko fi wàññee. da ngay dem ba 2019. waaw doo ko fi wàññee waaye tamit doo ko fi yokkee léegi tamit nañu xool fu ñu jëm ak waa conseil hmm. nañu xool fu ñu jëm ak Amadou ñoom. Hmm. parce que xam nañ ni ils ont vu ne gis nañ ko ne. Hmm. ces élections favorables leen. te gis nga Bachir fii ba deux mille cinquante ñii bu ñu organiser élection dañ koy ñàkk. dañ koy ñàkk. xam nga lu gën a garaaw. lii dafay dafay gën a yokk. le dégoût et le sentiment de mépris que les Sénégalais avaient pour ces gens da koy gën a yokk waaye da ko wàññi. man souvent je me demande vraiment ces gens qui sont autour du président Macky di ko wax ay wax mu koy nangu. parce que maa ngi dégg Pape Alé mi un jour que président Macky Sall ngi wax ay ñooñam que ni a tax Sénégalais yi bañ ma est que tey lii du ko yokk. mais yokk na ko. Hmm. man a keneen a keneen a keneen tey le sentiment qu'on bi ma dégloo bi président waxee bay wax le sentiment que j'ai eu, et je sais qu'il y a milliers de Sénégalais qui ont eu même sentiment, mmh. président Macky Sall ne mérite pas. Il y a une fille qui m'a appelé en pleurant. Et je te dis hmm. hmm. bi mooy sénégalais dañ koy fàtte. gis nga xam ne report élection yi ñoom lay profité. ci naka. ah mais yow président bu ñëw septembre day tas assemblée. <laughs> j'ai entendu ça dégg amul dégg naa ko da koy tas. président bu fi ñëw da ngay tas assemblée nationale. donc ñoom. Hmm. ñoom ñooy dañoo gàtt législature. démb bi naa ko Facebook nee naa ko gàtt législature. mën na yóbbu xelu député donc ñoom lay profiter ils ont encore ils vont encore grignoter quelques mois de salaire ah absolument bien sûr mm-hmm. ñoom bu ñu ko yóbboon fii ak cinq ans sax seen ci de au contraire dañuy kontaan mm-hmm. donc le respect du calendrier républicain ne les intéresse pas mm-hmm. et encore une fois ces gens-là ne méritent pas l'argent du contribuable sénégalais non ils ne le méritent pas parce qu'ils travaillent pas ou bien parce qu'ils parce que ils sont en train de jouer avec nous dañu nekk dañu et encore une fois man gis nga man même falum député foog ñu xoolaat ko ci réew mi parce que def ay liste fal ay nit non réew mi faluñu leen réew mi liste yi lañ fal waaw parce que ces gens là xam nañ ne fa ñu dëkk bu fekkoon ñoo ñoo leen di fal ñu falu man je pense que ne question de législative maintenant war nañ ko mën a changer ñu xoolaat beneen format wala beneen formule bu ñuy falee député bu ñu xam ne kii buñ ko falee dañu xam ne askanama ko fal j'ai entendu une, une, dame sur une télé de la place, une députée qui dit que nous ne sommes pas des, présidents, des députés du président, président Wahonyok Dara. Mais tu ne peux pas dire qu'un Sénégalais de Wahok Yureyeux. Encore une fois, nous savons que oui, président de l'Enko Nous savons que le président Wahol, parce que tamit, nous faire politiquement, nous ne pouvons comprendre. Président, moi je dis APR. Les députés, ce qu'ils font, ils parlent avec eux. Nous savons Et c'est très normal, c'est légitime. Mais nous, si nous sommes duñu wax lu dul dëgg. Mm-hmm. il faut qu'ils arrêtent ça. il faut qu'ils arrêtent alors Seydou Nourou. Mm-hmm. gis que ni euh, Ousmane Sonko kenn du nattali mooy leader politique bu opposition bu Sénégal. bien sûr jamono ji il n'a pas la possibilité de communiquer ni de faire quoi que ce soit. parce ouais. qu'il est derrière les barreaux. Ouais. ñu fi nekk tey gis nañ bi ci guddi ñu amal benn conférence discours yi bari na depuis une semaine boobaak léegi la tey lan moo war a nekk les actes parce que actuellement on a besoin xam nga mm-hmm. xam a y a beaucoup de possibilités. y mais toujours un combat juridique. absolument man pour man réew. Mm-hmm. yoon a koy lijjanti. Mm-hmm. je ne suis pas euh, ma ci ñi nga xamante ne dañuy foog ni réew comme yoon wi réew mi yoon bi dafa nërmeel non non non. Mm-hmm. yoon mu ngi ci réew mi. mu ci réew mi waaw. ak ce uh-huh. nañ ko porté devant fi ñu ko war a yóbbu ci yoon. waaw décret bi abrogé décret be. Mm. nañ ko yóbbu ci yoon. lu leen yoon may ñu jël parce que nag. juge mun na ko dindi. Ah, mais tamit Seydou Nour mën gis juge jox fi dëgg Ousmane Sonko kenn appliqué ko. waaw ah, loolu la wax ca dee la faal loolu laa la wax nee xam nga loo gis rek. Ah. def ci li la war. maintenant le combat politique. Mm-hmm. xam nga hier on a vu une conférence de presse. absolument à 23h. avec des acteurs à 23h je les ai tous écoutés. Mm-hmm. parce que man je ñoom wax nañ li ñu war a wax seen taxawaay wax nañ ko seen taxawaay politique te li ñu wax yëpp ci yoon lañ ko teg mais nag beneen affaire bi mooy daf si am ñoo xamante ne ñu ngi fii ci réew mi mm-hmm. encore une fois mm-hmm. boobu ba léegi kenn déggu leen mm-hmm. parce que dañ leen rakkale woon ñu ne pat di dof dof ci kanamu sénégalais di wax ne waa je suis pour un report je ne suis pas pour un report di def ay communiqué non dañuy foowee sénégalais ñoom tamit te gis nga Bachir je vais la mort politique de certains politiciens. Mhm. ci ci ren jii lay am. ci 2024 bi. non non il y ya des gens qui qui vont mourir politiquement et ce sera fini pour eux. xanaa dañu dem bokk ñu dem ànd ak pouvoir. Mhm. te bu ñu ànd ak pouvoir sax ñu fa tekki dara. parce que fii day jeexal ni quand même lii moom. waaw waaw léegi nag sénégalais mooy ñun fan lañu jëm ak APR ak PDS. Mhm. retrouvailles famille libérale. mais c' est leur c' leur droit le plus absolu. on leur concède ça. Mhm. ay nit bu ñu buggee dajaloo bu ñu buggee mbooloo nañ booloo amul benn problème. Mhm. mais nag buñ ci sacrifier sénégalais yi. Mhm. encore une fois les priorités sont ailleurs. parlant de sacrifice. gis nañ que ni ba tey ci Ousmane Sonko laay taxawal gis nañ que ni délai bi ñu ko waroon a àttee ci li ñu koy toppee xaju foon fii ak élection yi. bu président yokkee mandaam maanaam prolongé. est ce que xaju fi tamit ñu àtte ko jàllal ba ci Bachir Diomaye Faye bu mu la bett parce que ce pays maintenant accélération de procédures c'est devenu une chose normale on accélère les procédures pour faire ce qu'ils veulent faire éliminer des candidats par accélération de procédure mmh. assemblée nationale li mu accéléré lii mmh. mais Bachir mënuñu koo gis projet Ousmane sonk ak Mame Mbaye Niang d'ailleurs en parlant de ça hmm. le juge euh, qui a Cheikh Ndiaye qui a porté plainte hmm. contre euh, est que da nga procureur wax ci non. est ce que kooku honneur moom euh, honneuru maam euh, Mame Mbaye Niang dafa ëpp honneur juge boobu. non surtout ak juge boogu li mu liggéeyal Sénégal ak dayo fi am. Mhm. kon honneur Mame Mbaye Niang moo ëpp kooku. non le procureur qui s'est pas autosaisi peut-être qu'il va s'autosaisir on mhm. gis nga Bachir. Mhm. caaxaan baaxul. te réew du ay fo. gis nga le peuple là le peuple sénégalais. c'est un peuple pacifique. c'est un peuple pacifique absolument c'est un peuple avec des valeurs mm-hmm. loolu yëpp nag li ñu ko may ñun xam nañ ko mm-hmm. te du duñu nangu mm-hmm. encore une fois ñii di ñu ko yàqal pour des intérêts purement politiciens et personnels li waaji naan sunu ak sama bu taxawee soo nee sama tu mérites rien de ce Sénégal na doon sunu réew mi ñun ñoo ko moom Absolument. on avance ñu dem defi yeneen. alors comprend ko kii di le temps des de s'achève celui des peuples commence. waaw le temps des robes s'achève celui des peuples commence. ah mais mais c'est-à-dire il incite le peuple sénégalais à prendre ses responsabilités. bien sûr. c'est est-ce que est-ce que vous êtes d'avis de cela. bien sûr c'est au peuple sénégalais de prendre les responsabilités. en faisant s'ils acceptent. Mhm. non non bu fekkee lii dañ ko accepter. Hmm. nañ ko accepter mais buñ ko accepté wul. Hmm. droit de manifestation am na ci réew mi. absolument dépose une demande de marche. Mm. Sénégal yëpp génne woon président que ne d' accorduñ ci li nga wax. Mm. mu gis que ne réew mi génne nañ d' accorduñ. Mm. peut-être dina ko mën mais on se souvient de ce qui s' est passé 23 juin. pourquoi Abdoulaye a reculé. Mm-hmm. parce que il a vu le peuple dehors. absolument Y en a a a marre on ne voit plus Moi, écoute, Y en souvent tu j'ai suivi. Euh... Malade euh, je le comprenais pas sincèrement man ay position m tuma Euh, Kilifeu euh, il était sur la Sen TV macha allah. Mhm. moom je l'ai bien compris. Mhm. donc ñeneen ñi ngeen déggu leen xaw ma ndax ñu ngi woon yeneen plateau je les ai pas suivis mais xam nga tey. Mhm. li xew ba xew mooy lii yëpp politique rek moo ko laal. gis nga ay ay kii dañoo jiiñ juge bi dañoo juge bi loolu ay waxu caaxaan la. gis nga coow yàgg naa am ci élection présidentielle. Mais quand on nous dit que c'est parce que Karim Wade bokkul c'est parce que le procureur s'est autosaisi sur l'affaire Rose Wardini moo tax ñu war a pousser suñu élection non président tegoo dara suñu loxo. bu ma paree de forcing. mais écoute xam nga nag euh, beaucoup de politiciens avaient accusé le président Macky Sall que ne dafa bëgg a continuer troisième mandat mu ñëw teg ko ci suuf te man yàgg naa wax ni dama amoon yàqin ne président du def troisième mandat. man yàqin boobu dama ko mm-hmm. mais fi mu nekk nii je sais même plus quoi penser. Seydou Nourou ce qu'il moo en train de faire là moom troisième mandat wax Macky Sall bëgg mooy le léegi nañ xaar ba la 2 avril février 2 avril. Mm. on verra peut-être que aussi il y a eu des protocoles xam nga y la eu le protocole de Doha. Mm. y a eu le protocole de Guinée Conakry. de Massalikul Jinaan léegi loolu laa la wax rek léegi de Massalikul Jinaan léegi na xam ban protocole moo am fu nekk nii mais ma foi Bachir encore une fois. ay nit yoo xam ne mënuñu gagné élection waruñu ñu mën a tere ñu dem suñu élection. absolument dëgg la de. Karim Wade ak ñi mu àndal xam nañ ne mënuñoo gagné élection ci réew bi loolooy dëgg. Hmm. Rose Wardini ne peut pas gagner des élections dans ce pays avec tout le respect qu'on la doit. mais Bassirou loolooy dëgg. Hmm. yàlla dëgg la bëgg. Hmm. xam nga tey bu fekkoon c'est des candidats vraiment yoo xamante ne xam nga tey quand quand on parle de de deuxième tour da nga ciy dégg turu Karim on parle ex-Pastef peut-être ak euh, ak Amadou Ba. Amadou Ba mhm. même bu defee sax bari na ñu ci déggul ah. waaw ñu validé ba jàll. non ñooñu moom gis nga am na ñoo xam ne ba ñu fa validé kenn déggatu leen. Mhm. même ñu fi doon xam nga euh, docteur Baba Boubacar Camara waxoon na fa report. Mhm. ñëpp daal ko. je pense qu'il peut-être qu'il a eu raison sur sur nous man bokkoon ñi ko dal. ne ko non docteur ne ko non euh, Boubacar Camara on est désolé. dañuy dem élection. on doit respecter le calendrier. loolu mooy jàmmi réew loolu mooy doxal réew gis nga réew hmm. constitution kenn du ko salfaañi kenn du ko foowee te man je pense que ne suñu constitution bi suñu politiciens li ñu di foowee dafa doy hmm. je pense faut vraiment qu'on fait des réformes ñu dem ci yeneen affaire yow tu tu tu tu tu tu tu penses normal que dans un pays hmm. déjà vingt candidats yi on parle de quarante quelques candidats yoo xamante ne ñu ne ne ne rek te ku ci nekk yaa ngi teg say argument ne lii moo tax ñu réclamer dama war a bokk mais fu ñu jëm ak 80 candidats. doy na waar mais Seydou Nour bëgg naa aussi ñu wax ci les détenus politiques parce que man sama préoccupation bi ëpp ci ñoom la quoi parce que tey yaakaar bu tas laa am bi ma jàppee que ni ñii lu metti metti le 26 février ginnaaw 2024 dinañ génn tey ñu jàpp leen dañu prolonger sa séjour carcéral illégalement. est tamit Macky président Macky discours bii mu jël war ci war a yokk jëm leen a libéré parce a xam nga c'est c'est tellement dur que souvent quand tu mm. en parles tu sais même pas quoi dire parce que des gens pour des délits d'opinion mm-hmm. pour avoir dit leur euh, leur avis mm-hmm. pour avoir dit ce qu'ils pensent de euh, ci dëkk bi ay ay ay ay tweet ay tweet ay Facebook ay capture d'écran ay capture ay ay ay ay ay statut WhatsApp moi qui te parle sama goro mu ci kaso bi. Ah sama jëkkëru rakk mu ngi ci kaso bi. depuis. parce qu'il a partagé une vidéo xaw ma lan ci benn groupe ñu jële ko ci groupe bi et puis voilà ci kaso bi. xam nga quand tu penses à ces choses là. Mm. moo lay won que ni le mal est profond dans ce pays. encore une fois. Mm. moi ces détenus politique mm. c'est vrai que je pense à mais je pense encore plus à leur famille. parce que amoon nañ yaakaar ne dinañu jàll ci leneen su parce que amoon nañu yaakaar que ni après élection yi ñoom ñëpp ko ci nekk dinañ la bàyyi nga ñibbi sa kër. Mhm. et je pense que ne loolu war a am. Mhm. maintenant nag de grâce. de grâce ci war a jugé nañ leen jugé. Mhm. parce que Bachir. nit ki nga xam ne dafa def flagrant délit. nañ ko jugé flagrant délit. mais nga tëj nit. lu jege at. nga xëy jugé ko nga ne ko defoo dara demal ñibbi. on a vu. def flagrant délit nañ leen jugé flagrant parce que nag néewuñu ñëpp defuñu am na ñoo xam ne def nañ. absolument. constitution moo ne manifestation bu ñu autorisé wul bu ñu la ci jàppee délit la. Mm-hmm. kuñ ci jàpp nañ la jugé. Mm-hmm. mais nag nañ leen jugé ci li ñu def. li defuñu bàyyi la. mais page ku bind ci page Facebook am nga def ko instruction. Mm-hmm. pour la mais ko jàppe woon page Facebook mais après charge Ousmane Sonko. Sonko lañ ko ko ci kawam. Oustaz Assane Seck. Oustaz Assane la femme là y a a fait longtemps dans la prison camp pénal. camp pénal duñ fa jeex. Mhm. donc man je pense que ne tey tous ces prisonniers là vraiment. Mhm. xam naa ne tey euh, duñu añ. non duñu añ. li ma gën a métti ci mbir mi ce sont les prisonniers politiques. wax dëgg yàlla en tant que journaliste c'est eux qui vont payer les mhm. pots quand tu parles de journalisme ce matin ou depuis hier j'ai constaté que dans certains plateaux télé. y a des journalistes qui étaient pour le report. la propagande on a on ça. et j'étais dégoûté. de voir des confrères ñuy def loo Mm-hmm. c'est pas leur rôle. c'est pas leur rôle. dans un pays boo nekkee journalisme mm-hmm. dafa am foo war a taxawee. Mm-hmm. taxawel ci dëgg reste sur les faits. mais c'est pas à toi di def ay propagande report électoral. loolu gàcce la ci journaliste. la société civile dans tout ça. xam nga la société civile nag euh, la dernière fois j'ai fait une émission avec euh, j'ai son nom un la société civile. mais bi ñu defee émission pare j'ai eu beaucoup de respect pour eux. tu sais pourquoi. parce que ndekete ñoom il faut beaucoup de travail ci suuf. la société civile. waaw mais pourtant leen di sànni ay ay. ñax naa ci ñi leen di sànni. waaw deful leen liggéey da ngeen di nelaw mais mais ñoom ils font un travail extraordinaire ci suuf. Mm-hmm. Mm-hmm. maintenant nag woy politique yi. Mm-hmm. la nit mënta xam nooy defeek ak ñoom. loo wax mën nañ koo soppi 14 heures pour leurs propres intérêts. bari de léegi après loolu mu ci après dootoo ci mën dara Bachir. ñoom li ñu mën mooy wax. li ñu mën mooy agir et on ñi nga xamante ñu bëri seen position. parce que tey même les experts. Mm. seen xel yi nga xam dafa màcc ci wàllum élection. Mm. li ñu wax dafa leer. Mm. ba ci léegi bi may ñëw maa ngi koy déglu kenn di wax ci ñoom. lii xew nii. du dëgg du yoon. Mm-hmm. képp ku ko dëggal. képp ku ko yoonal. sa yëfi bopp la sa intérêt bopp ngay sàmm. léegi nag. l'avenir nous en dira plus. Euh, démb maa ngi lire ci Ayoba Faye. waaw bu ñu ràññee bu baax a baax Sénégal wala fu recruté ko fan effectivement mm-hmm. mu nekkoon presse Afrique Amadou Ba recevoir euh, rencontré kii président Macky Sall mais a été tendu est-ce que loolu nekkul un impact ci ci ci ci li am tey. non mais mais ñëpp xam nañu échange bi lan la. échange ah. c'était c'était pour le report. Ah. et Amadou Ba n'était pas pour. mais quand dans Benno. ba ki mm. démb quand j'ai écouté TS nu parler de report et nous dire que ne non je non non non. ministre de la république de six mois treize. waaw. gis nga seen six mois boobu gis nga gis nga euh, naar bu ndaw lu ma wax ci biti. te xayma gël ko jële <laughs> donc lu ñu waxtaanee la. Mhm. Amadou Ba mënu nekk seen candidat. Mhm. ñii dal ci moom fii ñii di tiire ci moom fii ñii ànd moom ñoom. Mhm. donc lii yëpp bettuñu. te balaa ngay xam li gën a leer. prochain candidat wu benn boo ko yaakaar. du nekk Amadou Ba du nekk Amadou Ba. mais mais mais Seydou bëgg naa ñu taxaw foofu. bu nekkee dina ma bett trop. dina ko bett parce que li ngay wax nii mën nañ ci teg baaraam parce que bu ñu gisee ni ma doxalee ma président daanaka xaw na xaw na doy waar. Mm-hmm. léegi man li ma bëggoon a xam mooy Amadou Ba daal tout ça ñu ngi koy jiñ wàllum corruption. Mm-hmm. di yàq deram di ko takkal ay mbir est-ce que jotul mu jël responsabilité am na lu ko bon yàlla may na ko mën naa peru ci wàllum politique ñëpp xam nañ ko demal boppam léegi la ma xam bëgg a topp ni ginnaaw foo xam dañ laa jiital di la fa kastal xam nga xam nga xam nga lan la xel mënta nangu mm-hmm. Amadou Ba nekk candidat wu APR Benno Bokk Yaakaar. Mhm. ñu jiiñ ko. Mhm. waa Benno Bokk Yaakaar ànd ak ñu ko jiiñ naan dañuy seetal deram. le cheval à trois. faut qu'il s'arrête. PDS Benno Amadou que ils écartent Amadou Ba ils mhm. amul leneen amul beneen explication. te moom xam na ko. te gis nga assemblée nationale li fa jaar dafa bëri. te gis nañu lépp. ñun dofuñu jinne jàppuñu. gis nga cette législature la c'est la pire législature qu'on a eue dans ce pays. pire. dans l'histoire politique dans politique sénégalaise. Mm -hmm. et ça se confirme d'ailleurs. bu ñu demee ba dugal fa ay projet de loi pour pousse ay élection euh, euh, créer fa euh, commission d'enquête parlementaire pour déglu ay juges. Mm -hmm. mais ñii li ñu def mosuñu koo def ci réew mi. te fa laa budde nee naa la ñooy nekk tamit législature bi gën a gàtt fan ci réew mi. Mm-hmm. ndax ki ñëw da koy tas. da koy tas. Mm-hmm. mais nag ñoom bu ñëwee ba tànn Amadou Ba. Mm-hmm. Amadou Ba nekkul seen candidat. ñu am crise politique seen biir. Mm-hmm. mais pourquoi nous on doit payer les pots cassés. de payer. c'est une crise politique. Mm-hmm. qu'ils veulent nous faire croire que ne y a une crise des institutions non. le conseil constitutionnel a été très clair dans son communiqué bi mu génne woon. Mm-hmm. gis nañ li fi xew ñun dañoo bëgg lépp leer waaye teewul processus électoral bi day wéyandi. parce que nag euh, Bachir. dans l'histoire politique sénégal fii lu ne xew xew na fi teewul ñu pousse élection. dëgg la ba ñuy rey juge. Euh, Kéba Mbaye at ma ca topp élection dafa am. dëgg la dëgg la dëgg la. ak yeneen ak yeneen xew na fi. Mhm. ay juge conseil constitutionnel démissionné nañ fi. teewul élection am ñu leen continué